ginnaaw bi ñu leen nuyoo sant leen bu baax a baax te it gërëm leen ci ànd bi ak seen seen préféré alxaaji Malick TV asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñi ngi commencé tey jii li nga xam ne mooy ouverture Bordeaux bi nga xam ni démb amoon na fële nga xam ni mooy dëkk bu sell ba image yi ngeen di gis bu ngeen ko gisee xam ni diiney islaam amaat na ndam ca dëkk bu sell ba ndax démb foo sànni mbatt mu toj ci biir Tiwaawan gi nga xam ni Sénégal gi yëpp ñoo daje woon defum diiraan daja fa ngir sàkku lenn muy waajal guddik yonente bi salallaahu alayhi wa sallam mi nga xam ni képp koo xam ni bind nañ la ci barkeem lañ la binde beneen bi mooy ki nga xam ni moo nekk gën gi mbindeef mooy képp ku nu bind moo la gën yonente boobee démb merul woon ci li nga xam ni mooy guddi gi nga xam ni jagleel nañ ko ko te ko jiite woon ci jumaay Serigne Babacar si nga xam ni mooy Serigne Mansour Sy Jamil Serigne Mansour Sy Jamil nga xam ni démb moo jiite woon ay rakkam yépp ci biir jumaa ji Serigne Cheikh it di taawu Serigne Mansour si borom daara ji ma nga fa woon Euh, Serigne Moustapha bu Serigne Abdou Al Aziz i Al Amin moom it ma nga woon ci biir jotaay boobee nga xam ni bu amoon solo la ñu man caa ràññee tamit Serigne Habib Sy Mansour bi nga xam ni doomi Serigne Mansour la mi ngi ci woon ci biir li nga xam ni mooy jotaay boobee nga xam ni daanaka kàddu yeen fa waddal yëpp duñ ca mën a agsi waaye kàddu yooyee kàddu yi ngëneel la kàddu yu cant kàddu yi tamit jël taalibe yi daal di leen di euh, gën a waagaat bu ko defee ñu mën a waajal gàmmu jàmm bu ko defee tamit ñu mën a préparer li nga xam ni mooy guddi gi nga xam ni bokk na ci guddi yi nga xam ni moo ëpp solo ci àdduna bi ci at mu jot muy guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam guddi googee nag ñu gën caa xam ah, Tiwaawan donte Sénégal gi yëpp nag ñu ngi koy def bu ngeen xoolee ci biti jàkkaarloo kër borom daara ji image yi mu nekk image yoo xam ne ñoo ko doon filmer mu nekk image yu am solo ba nu fa jógee ah, dem ci jumaay Seydi Alhaaji Malik gi nga xam ni ah, daanaka sëriñ Euh, xalifa général bi euh, falay lay euh, fekkee li nga xam ni mooy burdu boo xam ne mën na caane bu fekkente nit ay tànkam cawarte ga may nanta ko bu génnee ñëw bu génnul tamit joor Fuuta daal di ñëw a toog représenté li nga xam ni mooy tijaan yëpp représenté tamit li nga xam ni mooy islam ci jumaa jooje nga xam ni a tedd ki mooy borom. ngeen gis ko noonu ah, ci image yi nga xam ne daanaka ñu ngi ko jëggaani ah, ci asfiya mi nga xam ni ah, moom moo am image yu leer yi nga xam ni yu leer naññi la waaye li nu bëgg a wax lépp daal mooy jàpp leen ni borde bi ubbeeku na démb te it commencé na ci Sénégal gi yëpp wala ci àdduna bi fu ko waaye man di defee gàttandu li nga xam ni mooy guddi gi gën a sell ci àdduna wala ngaal kàpp bu ko defee mooy guddik yonente bi sallallahu alayhi wa sallam foofee tamit feesoon dell li wër jumaay Seydi Alhaaji Malick foo sànni mbatt mu toj loolu ak commencement la ci Alhaaji Malick TV waaye lu ci gën a uh, amaat ci information wala boog bis bu ne danañ leen ko mën a doxal donte tamit bord bi amoon ngeen ko direct démb